Hmm. d'abord le principe de la manifestation ci démocratie loolu ak pour man du événement hmm. vraiment li normal mooy euh, Ousmane Sonko ak ñi mu àndal am lu ñu bëgg a exprimer ñu wax ko hmm. nañ sant yàlla ba nga xam ne Sénégal sax boo amee loo ñaxtu da nga koy ñaxtu ci mbedd mi am na réew yoo xam ne bu amee lu ñuy ñaxtu ay fetal la ñuy génne boo gisee ñaxtu ci mbedd baax boo gisee mooy bu wax bu amul rek fetal dina génn wala bokk machette dina génn donc loolu lañ ci sant yàlla vraiment beneen bi ci mooy buuba fichier électoral ni muy fonctionner c'est que naturellement dafay dafay rénover wu maanaam du lu taxaw c'est-à-dire que loi bi dafa prévoir ni dafa am y a des périodes ce qu'on appelle des révisions exceptionnelles maanaam bis bu ne am na ñuy dugg bis bu ne am na ñuy génn. mais voilà voilà maanaam yoonu ko tënk maanaam fichier du loo xam ni kenn mën a def man dama dama bëgg mooy seen ay argument technique. wax dëgg yàlla ba bëgg la jox benn cours de de fichier la man waxuma loolu man sama perception des choses elle elle est différente de xalaat c'est pas technique. est-ce que man mën naa pare li ma bëgg wax li ma bëgg a wax dama ne fichier électoral du liste boo xam dafa toog fële ñu bàyyi ko fa. c'est important ñu xam ko. dafa dynamique. dafa dynamique maanaam loolu la. mais quand même normé par la loi. voilà mooy wax période yoo xam ne dañuy réviser fichier. maanaam fichier dafay bouger dafa ministre de l'intérieur. mais mais Yérim dafa important. Ah, xam nga boo nee de manière triviale dañ dañ ci ñi ngi dugal ñi ngi. génne day mel ni à tout moment lañ ko mën a def. dafa am des périodes de révision. du fichier électoral yoo xam ne ba pare dafa am lu leen war a jaaxal. am Ablaye Wade bi muy gagné ci fichier bi à deux jours des élections mi ngi yuuxu naan fichier bi baaxul te moo gagné Macky bi muy gagné ci fichier bii il a fait une émission spéciale boo xam ne TFM la ko defee ay Alassane Samba Diop di ko interviewé mu de wax lu ne ci fichier bi après mu gagné ci fichier bi politiciens yi aussi xam nga dafa am loo xam ne pour man mën nañ ko politiquer am loo xam mënuñu ko politiquer fichier bi parfait wul dëgg la am na yoo xam ne c'est normal parce que moment bi ñuy wax ak nii am na ku nekk ci fichier bi xam ne dee na kooku bu deewee dañu war a génn turam ci fichier fichier c'est dynamique. Hmm. mais fichier bi baaxul c'est pas vrai. c'est-à-dire que xeexu politique warul tax ñuy saboter démocratie Sénégal. xam nga loolu ah, fichier dafa naan dafa naan. mais Yérim attention c'est que Sénégal dafa am ay ressorts yoo xamante ni loo fi def la neex. voilà justement loolu la quand bien même tu serais de l'exécutif. dañu euh, fichier bi. Euh, quand en 2012 il a été annoncé que le président. Macky Sall dafa gagné woon avec 53 pour cent. c'est ça ma ne la si instant boobu la gars yi xam que dëkk bi dafa am ay ressort yoo xamante nga nekk nguur yoon nguur mënoo def la neex c'est la même chose qui s'est passé pour le président Abdou Diouf en 2000 bu muy ñàkk nga xamante ne possibilité yoo xamante ne ñu ngi ko doon wax parce que boobu ñu ngi si terrain ba mm-hmm. gars yi am loo xamante ne moom lañ doon séentu dafa ñëw ku ñëw toog wax ak moom ne ko pouvoir bi danga kaa ñàkk non dama la ne non ça veut dire ça là où Bouba touche ça veut dire que ba ba léegi en Afrique dañ doon wax lu leer pouvoir doo organiser élection pour ñàkk ko donc dafa am foo xamante ne lu mu wax mooy que. Mhm. pour fichier électoral bi ak lu mhm. ci mun ci wax. faaw nu koy surveiller. Mhm. parce que suñu démocratie yow yaa ngi wax fi sànq les assises de la démocratie. mais bu fekkente ne ñu ngi wax assise de démocratie mooy que quels que soient les mécanismes démocratie waxuñu ko. mais de donc faaw que si faaw que aussi. xam nga benn charge man ak yow ñu bokk il faut ma terminer. je suis d'accord il faut ma terminer. affaire baa ngi bëgg neex. daal li ma bëgg a wax ah. man c'est très simple. Hmm. man li ma wax dafa leer. fichier liste la boo xam ni Macky Sall moomu ko kenn moomu ko. loi bi moo prévoir fichier bi ni muy doxee. Hmm. dafa am ñu ciy dugg am ñu ciy génn. fichier bu parfait amul c'est faux. c'est vrai le fichier n'est pas parfait à tout moment fichier bi dañ ko war a d'ailleurs expertise internationale bi ñu mujj def loolu ko tax a jóg. lan la ñu wax 98 pour cent fiable. voilà l'expertise a dit que le fichier est fiable à 98 pour cent des experts internationaux. <coughs> yaa ngi dégg donc amuñu problème mu fichier électoral. léegi dafa am sujet yoo xam ne suñu démocratie ñun. Mhm. dañu ci war a am consensus. exactement parce suñu démocratie fi mu toll la. parce que man li ma gis mooy politiciens élection bu jub si naka la ñuy voté dañuy bëgg a rey il faut dépasser lan moo tax Macky Sall bi mu yooxoo fichier bi baaxul wax n'importe quoi bi mu gañee newul fichier bi baaxul nañ defar élection yi. Ablaye Wade bi mu waxee bay bëgg a dee non xaw ma PS li ñu fi def yooyu il a gagné. du ma reconnaître les élections du ma du ma reconnaître les résultats donc voilà après looloo sax. du ma reconnaître les a la base de ce fichier là. du ma reconnaître les mu dem gagné. affaire yi ñëw mu gagné. donc amuñu problème mu fichier suñu xoolal. Charles c'est ce réew mi. dafa am yoo xam ne pour man dafa war am consensus politique mooy lan démocratie bi parfait wul c'est vrai am na ñu ci war a yokk man damaa jàpp ne man loolu sama idée dañu war a def les assises de la démocratie man laa jàpp dafa am question yoo xam comme par exemple raw gàddu pour man du démocratie. waaw mooy. caution bi parce que nga jël yow yaa ngi au pouvoir. nga jël caution bi fixé ko lu la neex. Hmm. parce que parce que am na ñoo xam ne am nañ offre politique. Hmm. am nañ offre politique mën nañoo jariñ réew mi mais amuñu xaalis. boo ñëwee ni caution bi cent millions la boo amul tel du la ko jox ñoo ñu danga leen di éliminer. donc caution bi ñëpp dañu war a taxaw wax ci. Hmm. problème parrainage. oui façon bi ñu koy man li may wax Dara mooy loolu maanaam ni ñuy def ba nga xam ni question yi nga xam yépp c'est des questions qui flottent parce que démocratie processus la. Mhm. bis bu ne dañ koy gën a parfaire. Mhm. xam la tey bu démocratie amee alternance bu amee c'est que Abdoulaye Wade moo xeex ba am code Kéba Mbaye code Kéba mbay boobu bu amul woon alternance du mos a am Sénégal. oui parce que moo encadré processus ba nga xam ni yow même boo nekkee ministre de l' intérieur mënoo ci tous. oui xam nga ministre de l' intérieur pour ñu jël opposition xam na la pour dalal xel dalal xel kese la mais processus euh, démocratique Sénégal ni muy demee benn ministériel mun ministre mën ci tous parce que processus bi mooy lan depuis le bureau de vote tout le monde est représenté PV bi nga xam ne moom lañ defar PV boobu c'est des PV affichés qui sont d'ordre public. 14 personnes ñoo koy am amul kenn xoolal amul kenn amul kenn ku fi mën a fabriquer benn voix de plus. fii ci code de Sénégal parce que parce que donc de ce point de vue loolu. non non non il faut nit ñi am na loo xam ne loo loo xam ne. nit non am na mais non moom parce que dafa jëlaat parole bi ci li par rapport ak li ma wax et puis Birima bàyyi ma moom moo dagg li ma doon wax man tontu ko. Mhm. c'est-à-dire que perception wu Yérim perception wu Yérim la. Mhm. kooku moom la engagé. man waxuma ay termes techniques dañ ko war a surveiller li ma wax dama ne. Si je suis un opposant ici dans des pays en Afrique, je mets la pression sur le fichier électoral. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. que toog ne affaire bi baax non c'est bon c'est la même rajo privé yaa ngi mais non mais xoolal xoolal fi ñu koy yóbbu ci ay rajo waxaguñu eggaguñu rajo. rajo ah. moom